ñu am contentement ak mbégte ñëw fi nga xamante ne muy géejuwaay seet si ki nga xam ne kilifa gu mag la ñàkkul ñu bëri macha allah xam nañ ko fii si Sénégal xam nañ ko si bitim réew yàgg nañ ko gis eh, si domaine bi muy def si li mu yëngatu ak na mu koy defee ñu naw ko si loolu xam naa ne nag duñu leen eh, faral di taaral benn yoon ndax eh, wax ji yëpp ñu taalal nekki micro mu wax ngeen dégg ngeen xamal ko seen bopp saay su ne mooy sunu Pastef. auzu billaahi mina sheytaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك لا حلم لنا إلا ما حلمتنا TFM religion ñu ngi leen di delloo nuyoo ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan di ñaan yàlla kàttanal nu mu bokk ci jotaay yi yàlla gën a gërëm di ñaan yàlla lépp mënu fi waxit mu barkeel nanuy aadoo doon koy tàmbalee rek fépp fu ñu yëkkatee kaddu te mooy ñaan yàlla fépp fu kaddu ak nu jàng fatiha ak xul wala ahad ba ko defee xadiya si sallallahu alayhi wa sallam nu xadiyal ko bépp néew jullit boo xam ne ma nga bar sàq nuy ñaan yàlla it faj aajo yi yàlla yokk wéral cër yi yàlla yokk sutura yàlla yokk barkeel yëngatu yi alhamdulilah sëñ bi kon nu ngi lay déglu din jërëjëf El Hadj Mamadou Cissé tey ñu lay dégg te xamuñu la wala ñi la xam sax nga fàttali ñu kan mooy El Hadj Mamadou Cissé ndax dafa baaxoo ñuy xam nit ki cosaanam fu mu jógee fu mu cosaana ak li waral tey fi mu toll. alhamdulilah loolu dina nu neex macha allah El Hadj Mamadou Cissé cosaanam mooy njaareem. wala ñi ko gën a xamee si Jurbel yàlla def mu meññ ko si kilifa gun doon wax Aliou Cissé defe naa Alla Cissé wala Aliou Cissé turam yaatu woon na lool lool lool lool jamono yi mu nekk àddina mu doonoon muqaddam si alxaaji Modou Tàññang alxaaji Modou Tàññang waaye juróom doon alxaaji Mbàkke Tàññang alxaaji Modou Tàññang boobu moo nekk nag sunu kilifa alxaaji Alla Cissé man mu ngi nu ma dippee alxaaji Modu Tàññang kon sama wàjjur euh, alaaji àll si si sëriñam la ma dippee euh, sunu ngone yëpp nag moo xirtal nu si si jàng macha allah bi ñu am juróom ñaari at wala lu ko manqué sax la nu yoo dénkoon magam boo xam ne biit macha allah jiitu na yàlla na yàlla besal seen yërmande muy alxaaji mbay siise nu nekk say loxoom at yu bari macha allah at luy tolloo fukki at ak juróom ba nu fa jógee macha allah denk doon na nuy faral di denk kilifaam boo xam ne doomu waliyu la woon muy sëñ Modou Xumma doonoon doon si tafsir ma bu mag a mag a mag macha allah mi dënkee sanc tabanaani sa Saalum daan nañu koy dénki te saa yum daan dem dañ doon yóbbu leetlu kooku ma lay jox kat dama bëgg nga defal ma si moom saaxir ak baatin. fa tabarakallah loolu daal mooy doon jaar-jaar bu njàng mi ba mu paree it fa tabarakallah kilifa yi moom yàlla da leen di dee lu bëree bëri bëri macha allah daanay bëgg lool doon koy neex lool macha allah sunuy dëkk du yàgg man ak moom ba mooy tax bëri baraan na si ay taalibeem yoo xam ne bii gannaawam lan may doog di ràññee lan may doog di xam loolu lépp macha allah dan si sant yàlla eh, fàggateefam la si lanu joxe woon ndigal. comme nitu asrar la woon macha allah kilifa la woon danaa di wax na ba léegi si ku yàlla yóbbu njaareem mm-hmm. foo mën a wàcc boo ne kër ki ñi sant Cissé mm-hmm. buñ la yebalul kër sëñ Mor mbay Cissé yal na yàlla beesal yërmandeem mm-hmm. yokk leeram kër àlla la lañ lay yebal loolu nag fa tabarakallah sàkk la loolu sutura la te dañuy wax doomu diw doomu diw bu niinoor rek fa tabarakallah eh, doonul melul na ko war fa tabarak la mm-hmm. eh, loolu daal lan la mën a eh, baaxe si sunu sunu cosaan mm-hmm. fa tabarak la bi mu nu joxee ndigal nu ñëw ndakaaru 2003 mm-hmm. la 2003 ak léegi ay at la yàlla def sutura it fanu wàccoon 2003 ba léegi génnoonu fa macha allah muy fii géejawaay buntu li si Seydina Limaamu Laay depuis 2003 ba léegi nu ngi fi eh, fa tabarak laay lu ne fekk na fi ndax si ndigalam la ñu fi ñëwee waaye mën naa ne macha allah eh, am na turandoo yoo xam ne eh, du mbokk nu boole fa tabarakallah nit tamit jëflante naa man wala xolam sedd si man mu jël bie makka jox ma ñibbi si la war sangan ga yëpp mu def ko lépp luy teraanga daal lépp luy teraanga àddina mën naa ne fa tabarakallah fekk nu fii si géejawaay buntu li si Seydina Limaamu Laay motax dañuy sant yalla bu baax damay koy faral di wax ne yalla nono tànnal feneen waaye fi mënu tànnal mm, dañ si sant yalla tey dañuy ñaan yàlla macha allah muy doon adresse boo xam ne day sax si mbaaxu si mbaaxu borom bi foofu depuis 2003 nu ngi fi di góorgóorlu suñu kem kàttan tamit di jub tey jubal di góorgóorlu it ba nga xam ne jiitu na bar sàq waaye duñu def lenn loo xam ne bi macha allah su ko fi fekkoon dinañ sëgg loolu it nu ngi koy bàyyi xel bu baax di ñu nu yàlla boole it xam nañ ko si ñun si ne e, ku nu toogal bu ne bu nu tuddee baatu maaman yenn saa nit ne dem naa si maaman yu bari ma ne ko tey de kon keneen nga seeti ndax ki nga seeti jaamu ki man la loolu la ñu yéene lépp lu nu nit indil dan koy dañu jël lépp jébbal ko yàlla. Mm-hmm. lépp lu nu xam ne suñu ko defee yaakaaram du tas nu def ko dinaa koy wax ne baatu maaman moom ku ko fi ndaale eh, mën nañoo ñàkk juboo ndax ñaanunu sunu sunu garat garaat àggul foofu dañoo yéene doon ñaan ki man yàlla nag dafa maye mais li mu may feeg yaa ngi ko koy delloo ne ko yow la macha allah daf lay yokkal dinaa wax ne ko kër koo demoon jël fa benn décision te ëpp loo ko doole fa tabarakallah su la su sa décision jàllee eh, amul fayda hmm. lu ma bëgg a wax foofu rek mooy lépp lu nit def yàlla wuyu ko si hmm. su si gisee boppam mm, bu yàlla roccee loxoom ba xam ne du dara hmm. mooy tax nga gis yenn saa yi ko tàkk bu ñëpp di koy dégg day mujj daanaka coow rek fay des waaye barke neetu fa kon lépp lépp lépp nañ koy delloo yàlla dina di wax ne kii ñaan bu fekkee bu jaam bi ñëwee la ngay koy defal booy bind looy commencé bi ismillah jeexale ko si julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante boobu lépp la fa nekk ku dul yàlla rek mënu ko yëkkati fa tabarakala kon barkeelu gi ngay def si téere yàlla bi nga xam ne moo ne wanu naslu min al quran maa huwa sifa wa rahmatul lil mu'minin lépp bépp lépp luy aajo rek moo xam da nga yor sa kurus di sikkar moo xam da nga bind di naan wala da nga sangu pour sa yaram set lépp loo si am si eh, résultat rek delloo ko yàlla tey moytu fëgg dënn tey moytu wanewu tey moytu it eh, xam nga jamono yi si gannaaw doon naa koy wax ne kuy wax kat rek waroon nga rus mooy jamonoy fomm si amoon. ku ne naan bu nu ñëwee si man coupe bi ñëw bu nu ñëwee si man coupe bi ñëw te yow sa gannaaw suba leerul la yooyu caaxaan yooyu dafa xaw a bëri yaram mooy tax dinaa di wax ne war nan noo war nan noo war nan noo ndëppal mm. <laughs> yenn waxkat yi war nan noo ndëppal macha allah eh, li nit ñi di dàq tamit li nit di ñëw si nit naan ko dama bëgg nga faxasal ma cat mm. ñun cat dana nuy xaw di jàpp yenn saa mm. yenn dañuy faral di dégg lu bëri ci say mbir li baatu ha lanu gënoon na bëgg mën na ne yor-yor lanu taggo ta mooy suñu kilifa bu jigéen lanu gëna bëgg tamit yoor yoor lanu gane si ta mooy sila am taw loolu moom lu nit mën a teg ba la mais leneen li nag mbiru taalibi la tabarak la yàlla def depuis 2011 sunu nu am émission boo xam ne émission rajo la yoo xam day faral di jàll chaque semaine émission ba nu dippee ko doxa si barke loolu dem lañu fay waxtaane nu dem ba mu yàgg nit ñi ne li nuy waxtaane nii kat su amoon livre dana baax mm. yàlla dimbali nuy it nu defar livre tuddee ko Wadduha livre bi mën naa ne 2014 moom lañ ko génne moom lañ def cérémonie dédicace bi mhm. yàlla def barke ba cinq continents yi yëpp macha allah livre ba mhm. àgg na fa macha allah li nu tiire woon jeexoon na bu yàgg. Euh, trois cent treize pages la trois cent treize pages ci français ak alxuraan mhm. la sa nekk lépp nag ay ñaan la macha allah ñaanu askar ñaanu it nawaafil lépp xeetu nawaafil yu bëree bëri yoo xam ne day dimbali nit si dundam. lu koy dàqal njàq njàqare lu koy ubbile xéewal luy taxit macha allah ma am kiir laay yooyu yëpp tënk nañ ko fa luy dimbale borom kër yooyu yëpp fatabarakala tënk nañ ko fa luy may nit ki bayre luy tax a mucc yooyu yëpp fatabarakala tënk nañ ko fa eh, tënk fa lenn tamit si turu yàlla turu yàlla yi nga xam ne moo feeñ muy juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent eh, fatabarakala yi nga xam ne bii dañ ne eh, ko xaw nay nekk farata ndax loo xam ne ko mokkal den ne eh, goreel nga sa yaram safara mm-hmm. kon képp ku julli rek war nga see def gëstu juróom-ñeent fukki téere ak juróom-ñeent yooyu ñu indi saay ay saraxa yoo xam ne turu yàlla yu bëri la muy taxawee na ko nit ki mën a defee fi tabaraka laa ngir am si fàttu ngir dàq eh, njàqar yooyu yëpp fi tabaraka tenk tënk nañ ko fa mm-hmm. lenn si suratu fatiha nga xam ne ni ma benn magu saalum doon waxee ne fatiha mooy fateye mm-hmm. fateye mooy lépp looy ko rek Mm. si fatiha mën nga ko fay am mm. tey yenu na maanaa si ne farata képp kuy jullit nga mokkal ko ndax far force kuy wuyoo jullit bët bu set nga ko jàng mm. minimum dix-neuf fois mm-hmm. ndax julli gu amul ràkk ba amul fatiha du wér kon tegtal la si ne lépp lu nit di ut si arxuraan rek mën na ko ut si fatihatul kitab nuy indi lenn si ay secret fatihatul kitab fa tabarakallah yooyu daal tënk la indi fa it mbiru chiffre tuuti ndax eh, dinaa ko yox samay waxtaan yu bëree bëri bëri su ne nit ñi nan di nan di gëstu di xam di jéem a xam dara seeni mbir mm-hmm. chiffre dafay am solo si yaram ndax mm-hmm. mën na ne mooy doxal àddina ndax eh, numéro ba may wooyee jot ma mm-hmm. soo si yokkee benn chiffre amaana keneen ngay jot fatabarakallaa eh, tegtal la si rajo ba ngay déglu ba nga préféré déglu fréquence ba boo wàccee benn chiffre doo ko déglu kasaaka yi bi nu may seetaanee am na kanaal numéro nangam kon chiffre mën nga ne àddina bi lépp chiffre koy doxal man nga ne luy machine am na code code mm, tamit noonu lay taxawaayu doomu aadama di amee lu koy débloqué mm. te loolu lépp mën na doon chiffre fa tabarak la xam chiffre nit ki ñun fu nekk si àddina nit danu fay wooyee turam turu yaayam date de naissance am yàlla dina nu jagleel nu xam sa loo xam ne bu dee dafa bloqué woon tëj woon ba dara doxul yàlla dana ko defal fatxu su fekkee fa tabarakallah lu doon lijjanti la mu dëgër lool yàlla mën na ko betteeg woyof yolom yolom fa tabarakallah ba loolu man a sotti mm-hmm. loolu yi tënk nañ si lenn li nga xam ne bii mënees na ko xam si yooyu yëpp lu nu tënk la si kitaabu mm-hmm. Wadduha sant si bu baax nag ndax boo jënd Wadduha yi ñuy wax ak yow ñun ko bëgg am ndax depuis 2014 nga def comme nu muy yombee woon mm-hmm. ndax léegi par commande la ñu koy amee li ñu tiiroon imprimerie jeex na te Wadduha deuxième édition dafa war a am moo tax yóbbuwaatuma ko imprimerie mais ba tey ñi koy soxla dinañ koy am mais par commande lay doon bu njëkk nag barab yu bëri foo dem rek boo ne kitaabu Wadduha man nga ko yam mais mu ngi disponible ba léegi mhm. macha allah. ci biir loolu tamit gis nañu Wadduha am na si pharmacie. Mhm. waaw site internet bi may fàttali ñi ñi ñuy déglu soo bëggee xam yi ñuy waxtaanee yëpp tamit soo demee si site internet bi nga xamante ne mooy wadduha point org mhm. wadduha comme ni ngeen koy déggee bind nañ ko noon moo nekk suuf point org donc pàcc yi ñuy wax yëpp presque lépp a ngi foofu noonu quoi léegi si wàllum pharmacie bi ah. Mhm. foofu la ñuy bëgg a dugg tuuti xam naa ne après tamit nañ waxtaan si actualité avant ñuy dugg si faj mais su wàllum pharmacie bi mhm. Wadduha bi tey soo ma si doon mën a wax surtout li ma gis fii yëpp mhm. ah, ñu si yëngatu maanaam mu nekk fa lan nga si mën a wax. alhamdulilah ni ko waxee rek ñun sunu entreprise dañu ko tuddee Wadduha nu si ñaan barke Duha mhm. eh, lolo indi boutique bu Wadduha yi ndax eh, bu njëkk lépp dafa nekkoon kër ga rek mhm. macha allah comme bari na jaamu yàlla yu nu yàlla booleel fii si Sénégal ak bitim réew nu mujj yaatal lu bëri bëri bëri bi livre bi génnee eh, lañu xelaatoon ubbi ay boutique mu tuddee ko boutique bu Wadduha mhm. yooyu la fa nekk bari na macha allah xam naa lim ko du xaw di yomb wante am na si loo xam ne mën naa ne daanaka euh, bokk na si lanu ko sose muy cuuraay cuuraay boo xam ne cuuraayu seytaane lañu ko tuddee muy cuuraay boo xam ne macha allah dem na fu nekk si àddina bi ndax ku yàlla def nga am ko di nga ko baaxee keneen ndax day cuuraay boo xam ne guddi goo ko suuroo wala barab boo ko suur saytaane du fa fanaan guddi googu si mbaaxu borom bi muy loo xam ne bii macha allah eh, yaatu na eh, noonu la amee ay kiis pour xelel yi noonu la amee gàllaaju njaboot gàllaaju njaboot li wax rek jigéen du day raw njaboot da nga siy jiitu dinaa suñu waxtaan lu bari mooy tax am na eh, ñu ma tuddee xaritu njaboot gi ndax damay insister lu bëree bëri bëri si njaboot gi yaram dinaa di wax ne da nga di gis koo xam ne liggéeyukaay macha allah su wàccee façon caabi bu nekk dana ko ko tëjee wattu day ur gardien ne ko watul ma mm-hmm. est ce ma ngay wattu keur ga te njabot moy alal alal yep njabot mo si gan mm-hmm. misal si ne ko demon tay ne ko sa dom la bëgg nga jaay ma si 1 milliard may mm-hmm. maytul da jappante kon la si ne njabot moy alal motax tax insister lu bëree bëree bëri si njabot gi fa tabarak la galaju njabot luy ar jigen la njagamaar xele bu ndaw ba nga xamne du sumi tubayam ba fekk muy am jëkkër mm-hmm. loolu it mu ngi si boutique gu Wadduha yi kër mm-hmm. kër yi dinaa koy wax ne saaxir yi mën nay taaru lool waaye baatin ba it xaw a doy waar te mooy kër yoo xam ne wér mën na fay jafe mm-hmm. eh, eh, kii kumute mën na fay yaatu juboo it mën na fay jafe yooyu yëpp ñaare amaana Euh, boroom kër ga dafa doon surga ba fa mag rek surga ba fa mag mooy se <laughs> la nit ñi teg bët moom moo fa mag mooy wax mooy bàyyi waaye am na leneen lu fa nekk lu ilif kër gi la ma bëgg a wax rek mooy barab bi ñaare mën nay am lu fa nekk lu bët dul gis mm-hmm. mooy tax nan di gàllaajal lu bare bëree bëri kër yi fa tabaraka la gàllaaju kër moom it gàllaaju daamar mm-hmm. euh, muy oto moom it yooyu yëpp yu nu defar la yoo xam ne mu ngi si boutique yi moo xam géejawaay la buntu lycée Seydina Limamou Laye moo xam Point E la moo xam yoof la moo xam Tëngéej moo xam mbuur moo xam Diourbel sanday dogalu yàlla yi mu ngi xalaat Saint-Louis Ndar si kàttanu yàlla ak yeneen i barab si kàttanu borom bi incha allah mais lii daal ni nga ko waxee rek ku dugg si wadduha point org fa tabarakallah lenn si produit yu bëree bëri yoo xam ne mënuñu koy tudd da ko fo fekk ndax am na ay tojcal luy toj liggéey luy faxas cat yooyu fa tabarakallah euh, tënk nan def nan ko bàyyi ko fa hmm. lépp it si enveloppe lan ko def aar xoraan la soo ko amee yow yaa koy jël defaral ko sa bopp di fa tabarakallah lu si am rek bu sa gisee tampon Mara na jàpp na si boutique Wadduha la ñu dëkkee si barab yi nga xam ne sori na Ndakaaru it fu ne si région bi dañ fay yóbbu ay commande hmm. dañ la ko yóbbul garage bu àggee nga jëflante ki nga xam ne bii moo la ko moo la ko la ko indil daal. loolu mooy taxi daal. waaw taxi Wadduha pour ñi nga xam ne dañoo nekk biir Dakar bëgg nu def commande bëgg nu indil leen ko mais ñi nga xam ne dañoo dëkk fu génn Dakar fu tabarak la bu lu nu mën a commande rek. dañuy far lépp macha allah man nga xëy 9h yónnee luy dem Tamba mm-hmm. wala 18h borom jot si fa tabarakalaa noonu la ñuy faral di liggéey ñi nga xam ne bii nekkunu biir Dakar doon. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah sëñ bi da nga dugg fu am solo maanaam avant mooy dugg si actualité foofu lay njëkk euh, wax maanaam da nga ne léegi li nga xam ne day kaar aar lépp luy war waay maanaam mooy oto. oto dafa laaj euh, kaaraange. bu wér a wér a a wér sax eh, yaram bari accident yoo xam ne yaa quelque chose wallahi bari na ku soog am am ku fa bàyyi ko bu bu mënoon a indiwaat ba kanam laaj ko nu soog bi demee dana dana moom sax daf koy jaaxal fi tabarakallah lépp nag yàlla la waaye suñu borom dafa bëri mbindéef wallaahi mooy lima ma lay wax rek ne embouteillage su doomu aadama yi nii mu mel léegi bu seyaatin yee ko ëpp foofu fa tabarakallah mooy tax bañ a gëm dara wóorul ni ma ko sama benn jarbaat ba xewoon tons man tey jommi naa dama ne ko lu xew mu ma man maa yëpp safaru clando mu ne yëpp naa ba fees départ taxawaatuma ba fa ma war a àgg ba arrêt ba ma war a yem bi may dem trois moo ne si gannaaw bi may àggee dee laa gis <laughs> te taxawul nen <laughs> xam nga loolu loolu leneen la loolu leneen la maa ngi doon dégg benn xissa boo xam ne histoire bu am la eh, xam nga kaar bi def plus de soixante personnes man naam fa tabarakallah leneen nga fa lu nuru nit te doon leneen waaw te dafa ëpp di weddi nag macha allah su borom dafa bëri mbindeef mooy tax nit toujours nay muslu surtout booy tukki génnaa lañ jàpp léemu lu ama ama am solo lu bañ luy ëpp di sàggane la nuy dugg si oto di daw ba mu yàgg am lu luy tàllal làmmiñ bi jëmale ko si bëtu sëfoor bi am benn góor goo xam ne am na basiira mooy gis na ko si bàttin bi mu ko xoolee kële bàyyi ñuy demaat ba mu yàgg góor gi xaw a jaayeexu tuuti kakku gisoon mu gën a guddal làmmiñ bi bay bëgg a muur bëtu sëfoor bi góor gi yónnee ko <laughs> li topp si altine <laughs> waakaar bi yëpp di koy coow lan moo xew lu tax ngay dóor koo xam ne nangam nangam nangam nu daw tuuti rek euh, loola wàcc li nuru woon nit wàcc mm-hmm. bi mu wàccee may leen kii de daf doon muur bëtu sëfoor bi ñëpp yéemu ñëpp ñëpp yéemu ka sàkk nag néew ma soog yëpp xaj na amaana noonu la mm-hmm. waaye musluwaay yi nanu ko yokk si daamar yi musluwaay yi nanu ko yokk si kër gi musluwaay yi nanu ko yokk si njaboot gi mm-hmm. mais kon nit daal lépp lu mu bëgg fi mu toll su ko daf ko war a ñàkk ba si ki am ne jigéen du tëdday raw ko xëy léegi macha allah jigéen ñi ñuy jàmbaar lool ku si nekk rek yaa ngi daw ngir gën a gën jàppale sa borom kër gën a jàppale sa njaboot ngir macha allah eh, mbir yi gën a yaatu kooku nag mën na dajeeg seytaane boo xam ne amaana mën na koo gëlëmal ba la muy def sax du doon la mu bëgg mooy tax ku am soxna jëm ko ñag ba nga xam ne lu ko tiim si mbaaxu borom bi sëy si bi damm loolu mën na na mën naa ne dañ koy dañ koy liggéey tey xaw nay nekk farata fu la mm-hmm. njaboot gi moom waxale wu ma ko. <laughs> dégg naa ngay wax njaboot gi ak si soxna yi mais nag dëkk bi. Mm-hmm. dëkk bi tamit bokk na si lu ñu war a aar. wallaay ndax gis nañ ni musiba yu bëri xew na fii. rawatina sax si jigéen ñi nga doon wax jamono yële si ginnaaw mm-hmm. doon nga gis ay jigéen yoo xamante ne jëfi ñaaw ñu leen koy def mm-hmm. ñii dañuy jëm di violer jigéen ñi ba mujj di fàtti rey mm-hmm. ah suñu jógee foofu accident yi nii gis nga wax nga see jot nga see leeral tuuti mais coow li bëri woon si dëkk beek yëpp li ni mel lu bëri tamit es ce que jot na kilifa yi wala ñu ngànk dëkk bi ñoom tamit si aaruwaay kaar kaaraange dëkk bi ba xam tamit euh, du nekkul sécurité bi kese mais est ce que lii bokk ngeen gën see indi lu lu wér a wér wér na eh, dëkk bi moom eh, bu fekk nu ngi gën a wormaal sunu kilifa yanu yàlla baaxee di gën a topp seen i ndigal fekk nu ngi sax si loolu macha allah Sénégal fenn du ko dàq. fi ko dàq bëriwul te it eh, macha allah sunu saxee si loolu kanam lay jëm si mbaaxu borom bi mm. mais fekk nu ngi jéggaani loo xam ne bii leneen la. di gis leneen rek baraana yoo xam ne bi yaaram ku yewoon mag ñi wax la ne mu ngi am Sénégal dana ne du Sénégal ba ma fi bàyyoon bu nu demee ba ne Sénégal nit am na fitu fekk ay xele yu tëdd nga rendi loolu loolu subhanallah nga xam ne bu njëkk baraana boroom kër yoo xam ne seen ki sax danañ ko néeg a defar nga ñëw doomu aadama ni yow lang nga say ut xaw ma ak lu mu mënti doon rek mm-hmm. daf jaru ko tey defe naa ne xolu Sénégal dëgg-dëgg si ñewante gàkk nga xam ne bu njëkk naqar fu mu am si quartier mën na ne quartier ba yëpp dañ koy gunge si naqar jooju léegi looy gis kër gi ngay gis am ko wàññiku benn kër ngay wàññi ñaareelu kër ga ñoom na ngay bànneexu te loolu bu njëkk xamuñu ko woon bu njëkk mag boo génnee xelel boo gis mu jàdd yoon dangay ngay am droit jubbanti mm-hmm. léegi waxuma la xelel bu la neex waaye sa njabootu bopp sax Ah, boo leen dee jubbanti am na foo xam ne fa ngay yem yooyu yëpp nag day màndarga yoo xam ne bu njëkk sunu kilifa yi war ma jinu leen joxoon léegi si da ngay dugg si internet bi gis koo xam ne macha allah amaana sa waajur bu ko doon tudd day àgg si suuf doog ko jooro ga jaar si turam yow nga yor sa clavier wax loo xam ne maara day taali yooyu yéene nag ak uh, ni ni dalalee gan gan ñëw te du nitu leer macha allah ñëpp du jaamu yàlla lan waaye li ni yenn xeetu fitis yi te dañuy am supporter gis koo xam ne bii bu ne la woon dama bëgg nga sullil ma néew jëlal ma sa nangam macha allah da nga ma xol ndax bëgg àddina dem def loolu yooyu nag ak yenn xeetu sacrifice yeeg yenn liggéeyante yi nga xam ne bii macha allah. Euh, nu ngi koy def yooyu yëpp day këpp day doon mbalit moo xam ne day mujj ku mu dalul tamit dana xeeñ xeeñ goo xam ne réew mépp ko yëg loolu tax li sunu kilifa ga doon wax rek yal yàlla yokk nu koy fayal si ne nan sang réew mi wallaahi dan sa toll danu sa toll nuy sant yàlla bu baax nag tey am yaakaar nax jaam julli toujours yaakaaram day war di bees si lii xewoon si ouverture Massalikul Jinaan bi doon lu sedd xolu ko képp kuy jullit rek wala képp kuy doomu aadama mm. boo gisee macha allah lu ne néegu yàlla la mu taaroo noonu mu taaroo macha allah sa xol war na say sedd waaye képp kuy sénégalais te doon patriote soo gisee kilifa yoo xam ne kii dafa yoroon réew fukki at ñaar mm. kii yor réew juróom-ñaari at te boobu ba léegi nu leen doon wax bàyyi ak doom te boobu ba léegi kenn. néewul sa morom salaamaaleykum wala joxante woon loxo soo gisee lu tol noonu tey patriote sa xol war say sedd fa tabarak la xew démb muy lanu féexal ki fi doonoon meeru Dakar mooy macha allah ku am yene yene bu rafet rek sa xol war na si sedd comme oustaz Sayib Socé macha allah ni ñaan yàlla yokk ko wér yokk ko kàttanal réew mi daal lii xew fan sant nañ si yàlla bu baax a baax tey jur na yaakaar yooyu ñu ngi ñaan yàlla bañ koy yàq tey nu gën a raxas xol yi gën a yéenante jàmm nañu koy waxee ne ku doon diiseem santal yàlla ndax ay lim bu takkoo takkoo takkoo ngi si gannaaw te ñëpp mënunoo doon première fa tabaraka ku yàlla jox dara nu yéene la ko ñëpp ànd jàppale la mm. su yàlla demee ba ne lii ma la joxoon kat soxla naa ko fii la yem mm. yow it nga nangu dogalu yàlla e ànd ak keneen ka nga xam ne bi moom la ko moom la ko yàlla dénk bi mm-hmm. macha allah dégg ngeen li mu wax dégg ngeen te dinañu gën a yaatal dugg si biir waxtaan si côté jàngoro yu bëri numéro téléphone mi 617 77 617 70 44 77 617 70 44 wala 76 583 17 33 76 583 17 33 sëñ bi yaa ko wax léegi tey du ñëpp mën a doon première mm-hmm. tamit nit ku nekk lépp li nga yëngu soo sañoon nga raw ba ba ba ba ñoo la say raw te doon la gën mm-hmm. parce que yaa ngi ci am mm-hmm. mais bëri na loolu tamit ñu gis nit mën dara wala bëgg àgg fenn mu tëkko te am na xam-xam bi jàng na ko mën na ko mhm. donc mais lu mu fëgg mu dëgër lu mu yootu du gaaw a egsi loolu lan moo koy waral wallaay la koy waral mooy tëju ne dina koy wax lu bëree bëri ne kii wax ne dama tëju te jéemul ko macha allah dafa yaafus kii tëju koy mooy koo xam ne lépp lu mu xam ne ku ko jéem am mu ngi koy jéem te taxul ma am lépp lu wax ne ku ko def mën nga réussir dana koy def mais day échec loolu yi danay faral di am mm, na ma koy waxee rek lu tëju su ubbeekoo rek xewal ñëw yoon yese gën nag euh, dinaa di wax ne bokk na si jéem a xam sa sarax ak am solo mën nga ne code la si machine wala si portable mooy sarax yàllaa ngeen di defal sutura fu nekk si àddina bi nu ngi fiy jokkoog ay nit tur turu yaay date de naissance mën na ne la lii ak lii ak lii ak lii mën na la débloqué wala mën na tax tamit la nga doon toppatoo te mu dëgër euh, yàlla daf may la si bunt mm-hmm. su paasee looy sangu ndax yaram dina di tilim mm-hmm. ba nga xam ne macha allah wërsëgam day day muur ba nga xam ne luy ñëw war na da koy tiim mm-hmm. waaye du wàcc mm, subakat euh, nit mën na la dig ne la suba dinaa la yónnee dinaa la mandat soo xëyee sa yitte yëpp mooy ñetti minutes yu ne nga xool sa téléphone <laughs> mën na fa doxee nax saay <laughs> sooy rappele ko ko amaana mën na la sappe wala mën na dem ba la bu bu ko mere da nga naan li yaa quelque chose jéem seet ne lu tax deux plus deux égale quatre te man mënuma am quatre mënuma gis quatre lan moo ko waral dinaa di wax ne dafay am solo nit di gëstu boppam di jéem a xam biddéewam di jéem a xam taxawaayam di jéem xam waxtoom di jéem a xami bésam yooyu yëpp it xam-xam la fa la am na bés yoo xam ne loo si laar rek xéwal lay doon waaye am na bés yoo xam ne loo si door fa tabarakalla man na amaana doo am tànki kanam tànki gannaaw lay am kasaaka it noonu lay demee si ki nga nekkal muy soxna noonu lay demee ba ka ngay jël surga sax man na seen mbir mën nay am na moo demee ba dox bi ni mu waroon a gën a gaawee amaana du nuy gaawee loolu nag dafa lu am yàlla la loolu waxaale woon ko dina koy wax ne boo gisee yu bëri bëri nu nu koy tuumaal mooy jël lu yàlla moom bëgg ko moomale bëgg ko moom lépp yàlla la waaye suñu borom eh, bam nu wàccee jox nu xelit daf daf noo bàyyeek lu bëree bëree bëri nuy xelaat nuy xelaat googu indi tey fi tabarakallah nga mën a toog fii senegal nit nekk ba siin bu njëkk ngi ngay wax muy wax rek dafa nekkoon kéemaan jamonoy mm-hmm. portable jamonoy fixe mm-hmm. kéemaan la woon téléphone mm-hmm. <laughs> maa ngi fàttaliku bu ma jóge woon daara ja bu téléphone so fixe sonné damay njëkkante <laughs> pour pour pour dégg téléphone rek ñuy dem ba portable ñëw léegi ñuy dem ba internet ñëw léegi amaan amaana leneen day ñëw te suñu borom alxuraan dañu see bàyyilul dara dara dara mooy tax nuy ëpp muy bañ muy ëpp nu yàppus di toog toujours rek tubaab yi di defar nu yéemu mm. noo xam ne ñu nit fa tabarakallah alxuraan mën nañ see am gëstu loo xam ne lépp lu nu bëgg a def mm. yàlla mën nañu ko barkeelal ba loolu ba loolu antu bi waaye luy dindi kumute mm. eh, fa tabarakallah am nañ si yoon si seetal nit ki saraxam mm-hmm. Euh, ngir kumuteem dañ si jox ko ay càngaay yoo xam ne bii su ko sangoo dana kumuteem dana dañ fa la bu dee cata ko umoon su dee liggéey yooyu yëpp day um nit hmm. commencé si nuy gën di moytu tàngal xoru way jur ku si hmm. nekkoon bàyyi ko hmm. koo xam ne bi yàlla nattoo woon na la xaj na defoon nga ko ba mu jiitu leen na koy mën a kafaara rek mooy la gënoon a bëgg nga dabandi ko di leen koy def lu bari bari te di leen yónnee ñaan ñu ni danay wut loo xam ne ba mu ko rawee yàgg na te mooy dundandoog waay jur xolam di tàng hmm. mu lay moolu ba maara day taal yi jiitu la loolu moom lu jar a la hmm. su loolu boo seddalee xoli way jur fa tabarakalaa di warmaal képp ku yàlla warmaal di jub tey jubal li ñu wax sa compte barke day fees dell la xam nga compte bancaire la ñu bëri daw léegi uti compte bancaire saa yooyu retiré bu dee gab bu dee seg bu yàggee dinay wàññeeku mm-hmm. waaye barke da ngay gën di yàgg muy gën di yokk mm-hmm. te loolu ñu bëree bëree bëri xaj na sàkku gi dafa xaw di neew mm-hmm. muy compte barke fataba mooy waral sama mbokki bawol bawol yi macha allah mu fier si lool si nekk bawol bawol <laughs> <laughs> da nga fay am ngërëm muy way jur am ngërëm mu way ñoo fi jub di jubal doore lu fa tabarakallah nu dem ba lu néew loolu doon loo xam ne ñëpp si xaj mm-hmm. man bi may doog ñëw fi Dakar 2003 man rek la woon mm-hmm. nit daf ma daan woo maay dagg sama liggéey dem jëli ko tali ba ñëw dalal ko doog a dugg si biir na ko ak sil mm-hmm. tey su yàlla demee ba say surga ëpp fukk. seetloo ma si wax ma yor daal kurus bi yàlla may na ma si ma xam si lu bëree bëri nu jëlee tour tamit yàlla may na nu si nu man see xam lu bëree bëri waaye dinaa di wax ne. Eh, fi nu toll daal mën naa ne su amee leneen loo xam ne bi mën naa see dogg sama kéem kattan bu wér ak gudd fan mooy am aljana mooy tax yu bëree bëree bëri dana koy maytu loo xam ne bi mën nam si am daanu borom bi dégg naa faj dafa kéemtaane wala ñaan ah dafa kéemtaane mooy boo delloo lépp yàlla tuddee ko ñaan xam nga ñaan nag euh, bokkul ki ñu ñaanal ma la wax koy ñaan kon mbir yi néewul si yow mhm. kiñ koy ñaan nag mooy yàlla loo koy ñaanee bu dee ki yàlla may xam-xamu alxuraan mu ñaan si alxuraan ki yàlla may xam-xamu sungu fa la reen lépp xam-xam la ndax suñu boroom loo gis rek am na lu mu sa lu mu sa jenc tabarakallah moom it mu jël lépp delloo yàlla li bon rek mooy wane ni mbir yi yow la yàlla dañuy dimbali toujours bu nu nit wooyee bu may sant dama nan ko naan sant yàlla lépp yàlla la lépp yàlla tàmm bobu kaddu si man si lépp yàlla la loloy taxit lu nu ak nit dañu boolewaat lépp dénk ko yàlla loloy waral sha allah nuy duggu xal walu lu bëri koy duggé fu nekk it loolooy taxit tabarakallah fu nit nek su jokkoo ñun xelam dal nax ñu bëré bëri lég yaram sen xel mo febar nen nak bu xelam febaré amana man nga man nay fajo lu koy jarign sax waye xel bu febar ba dinay tax du ko jox war ma ba la mu say sàkku amaana mën na ko si bañ a gis. fii mhm. ko wax léegi dugg xalwa man de dama daan gis ba may nekk xale nit ne daa dugg xalwa ma ne moom tëju fii lekkul naanul si biir lan la fay def tojal ñu tuuti si mu wëtu dugg xalwa. ma ne ko leer leer leer mu leer a ëpp doole lekk. <laughs> <laughs> te macha allah xalwa leer la mooy tax boo fa nekkee macha allah da ngay woyof tey da ngay féex sa xol day dund. tey daal nu ngi sant bu baax a baax baax macha allah bi nu saamee ndigal di koy def njëkk ko defal sunu bopp yi ndax yaaram dañuy wax ne bala ngay wax bàyyi leen ko bala ngay wax bàyyi leen ko da ngay bàyyi leen ma waaw kañ bala ngay wax bàyyi leen ko wallaay da nga war a man bàyyi leen moom na ne ko waxin la a tabarakalaa olof di wax bala ngay laax di maye wala ngay jaay da war a xéwlu ba am tuuti kàttan ñun mën naa ne macha allah li ñu yàlla jëncaloon lépp si xalwa la nu ko njëkk amee macha allah ba nu koy amit eh, tegtale macha allah sant si yàlla bu baax a baax tabarakallah day am yu bëri yoo xam ne kenn du koy yëkkati waaye sant yàlla pour wane ne suñu bopp la nu ko njëkk a defal daal. Mm-hmm. si wàllum faj lañu ñu war a waxtaanee tuuti rek euh, gis nañu tey jigéen ñu bëri dañuy faral doon am doom normal mm-hmm. jékki-jékki rek te tollaguñ si ménopause. bëgg am doom mu jur mu mu mu dëgër ñi naan dafa taxaw lan moo koy waral. wallaay wallaay macha allah lañ koy waral njëkk a ñaanalit ñi nga xam ne ñëpp dañuy lay woo imaam wala ustaas wala Mara Cissé man dama tiit ndax am naa nangami at amaguma jëkkër te ma ne pos safa gaaw <laughs> ndeysaan day bëri ñu nu koy jàmbat dama mës a defee émission wax na xéewalu jigéen yëpp la sëggan mooy jëkkër. mooy ndax si jëkkër nga mën a amee doom soxna si boobu yàlla def mu ngi si trente huit ans mu nekk guddi googu nelawuma ndax maa ngi maa ngi am nangam at léegi mën na ko safa nangam nangam njëkk wax yàlla jàppandalal ñëpp ñëpp macha allah ku si am dix huit ans vingt ans vingt deux ans plus nga nekk sa néegu sëy fi Eh, ñi yàlla dogal nuy sëy tamit yàlla jubal seen sëy dàqal leen seytaane couple yi léegi jaxasoo yi bari na te lu si bëree bari bari loxo seytaane la ndax dinaa di wax ne ki nga xam ne danga bàyyi ñëpp ne ko yow la yow laa tànn moom mu bàyyi ñëpp ne nangu naa la li ma tànn loolu su amee rek lu dul ma wadd ak raxma waru fay am te léegi boo dee seet nag mën nga ne xaddaawa ak baxdaa mooy gën di bari te nekk nekkin boo xam ne ba ngeen ni tout tànk ba ngeen jàng la wala amaana sax du booba jamono seen lépp dëppoo woon macha allah ku si dégg moroom ju doo bëgg a coupé kuy toog ak morom ju firee ko bu baax te léegi ñaari baat rek ñetti baat yu méngoo mënu leen ko wax ñetti baat yu méngoo mënu leen ko wax loolu yaa quelque chose mooy tax yu bëree bëree bëri bëri dinaa koy wax yaa quelque chose si ne lu nit yor te bëgg ko wut si kiir laay ndax amaana kii nga bëgg du yow dong ko bëgg waa te amaana it fa tabarakalaa ki nga nekkal du yow rek bëggoon a nekk moom mooy tax macha allah eh, nan di gën a sàmm ànd bi bu paase loolu ni ko wax mbiru njaboot mbiru njaboot fa tabarakalaa yàllaa ngi nu si defal sutura kenn du juddu te soobul borom bi waaye eh, fi la ñaan la mooy ngànnaayu jullit te yàlla fekk yaa jox lépp rek nekkul lii day su gënee maa ngi la koy ñaan macha allah baraana ndab yoo xam ne boo ko tàllalee nit mm, su la ko duyalul ba mu du tas sa yaakaar dina am lu la si defal. nu si sant yàlla bu baax si domaine boobu yàlla baaxee na nu yoon yoo xam ne si kàttanu borom bi incha allah lu soxna yi defar supp bu ko xewloo si kàttanu borom bi ak lu muy naan ñeent fukki fan si kàttanu yàlla balay jeex dana yore dara si kàttanu yàlla dana jël bés ni ko mag ñi di waxee ba. Mhm. wallaay kër gi neexaayu kër gi tamit du loolu rek moo koy waral gis nañ coow yi bëri na si kër gi. Mhm. ndax tamit jigéen a ngi sëy te am bànneexu sëy mm-hmm. ndax seen borom kër yi tamit ñi si bëri dañoo xaw a néew kàttan mm-hmm. ñeen ñi amu feebar waaw mm-hmm. ah, ñeen ñi tamit mën nam judduwaale lañ si wàllum bët soin des yeux yi ma gis foofu tamit nga wax ci si wàllum bët macha allah mu ngi si butu gi Wadduha mooy gàllaaju saafara la pour bët géejuwaay fii am na fa point un am na fa Tëngéej Yoof Mbuur Jurbel mm. waxaale na ar alxuraan la nax barke alxuraan macha allah la ñuy liggéeyee loo xam ne bii mbind alxuraan la ki ko am moo koy jëfandikoo lu muy sël moo lay fan lu muy naan ak lu muy togg di koy xewlu mais barke alxuraan boobu si kattun yàlla dana koy saafaral lay tawatu bët ndax ñaare baraan ngelaw yoo xam ne bii si bët lay jaar mooy taf tabaraka la yàlla nga nu si defal sutura tamit. Mm. Wadduha Chifa. pommade contre tous les formes de mm, bu am am solo la macha allah muy frotté kéem mm, Wadduha Chifa bokkul ak frotté kéemaan boobu moom mbiru góor la mais Wadduha Chifa bi day ñi nga xam ne bii bu guddi jotee rek seen yaram day diis fa tabarakallah te mënun di suuroo cuuraay bi moom frotté boobu moom la nii frotté boobu. muy frotté boo xam ne ku ko laal si kattanu yàlla. fekk mu ngi nekk ak yow si kattanu borom bi seytaane du la jege. ginnaaw boobu si wàllum savon savon yi nga xamante ne surtout savon bayre bi. waa alhamdulilah euh, savon bayre savon bayre mu ngi si Wadduha tamit boutique Wadduha yi savon moom it mu ngi si boutique yi macha allah moom it ñu bëri mu ngi si def commande moo xam Sénégal la fii wala. bitim réew comme ni moo xam Sénégal it fu mën a nekk restaurant bu nit nekk rek incha allah sunu jokkoo mën na noo fexe ba mu àgg si loxoom di si mbaaxu borom waa di ko sangoo moom macha allah ne ko bii day faxas cat bii day ubbee nekki parfum ouverture it noonu la amee hmm. parfum ouverture pour commerçant yi ñi nga xam ne am nañ seen atelier wala nu ngi génn nu xool leen yooyu yëpp macha allah hmm. euh, parfum cat moom it mu ngi si boutique Wadduha macha allah moom it yooyu yëpp mu ngi si boutique Wadduha bi. mun nga ko solu nii puisque mu xeeñaa la. wallaay wallaay wallaay ma ne ko noonu nga koy defee sax macha allah muy parfum ouverture ak cat yooyu yëpp macha allah mu ngi si. li soo ko déggee day yokk poids yow mi tuuti woon jarutul naan mu ngi noonu muy lu am solo muy boo xam ne pour xele yi nga xam ne dañoo xiboon la ak mag ñi nga xam ne Wadduha fi tabaaraka la am na fayit garab boo xam ne day tax sa suukar du yéeg wala su yéegee day wàcc si mbaaxu borom bi sportif yi kon war na wallaay wallaay wallaay wallaay ay hémorroïde yooyu sonal na nit si pharmacie bi suñ demee am nañ fa saafara si mbaaxu borom bi mu ngi si boutique Wadduha tamit kii amee tension moo xam bii yéeg la wala bii wàcc fa tabarakallah mu ngi si hémorroïde mooy macha allah mu ngi si ndoxu siti yooyu yëpp am na ay garab yoo xam ne macha allah yàllaa ngi nu si defal sutura woyofal yaram nga xam ne yaram xeetu tawat bu mu mën a doon surtout tawat bu ñuul mooy ki nga xam ne mën nañ ko diagnostiqué mën na def bilan lu ne ko gisuñu si yow dara te moom mu wóor ko ne wérul am na lu ñuy wax woyofal yaram xeetu tawat bu ñuul bu mu mën a doon si kàttanu yàlla daf koy daf koy saafara moom arxuraan la da nga koy jëfandikoo looy togg ruy di koy naan ak leneen li nga koy naan ak sam-sam mais boo koy am nag arxuraan bi lan lay jox yow yaa koy defaral sa bopp pomatu siti waa muy saabu boo xam ne pour ñi nga xam ne seen der siti da koy yàq mooy mu ngi si boutique bi ni ki pomatu hémorroïde ñi nga xam ne seen hémorroïde dafa génn moom it am na am na pomate ñi nga xam ne seen hémorroïde si biir la nekkit boobu am na garab boo xam ne moom lañuy ñuy jëfandikoo di mhm, macha allah yooyu yëpp mu ngi si mu ngi si boutique bu Wadduha moom Wadduha point org <coughs> ku fa dugg rek macha allah lu si lëntoon rek lu lëntoon si Wadduha. ay miracle Wadduha bi nag boobu façon attaaya la warga chinois bi la wala ban warga. <laughs> Eh, Wadduha eh, te saxtar te la bu barkeel macha allah ndax dinay reesal nga xam ne dinay dindi ballonnement tamit mm-hmm. dinay eh, dindi insomnie. Mm-hmm. foto barak moo saleen yooyu yëpp. daf say dox te naturel la macha allah ataaya la ataaya bu barkeel moom it mu ngi si mu ngi si boutique yi macha allah moom ku koy jëfandikoo rek boo daawul lekk eh, dangay lekk senelo bu bëriwul tamit fa tabarakallah da nga di man di soo tëddee da nga mën a dallu yooyu yëpp macha allah daf say dox ballonnement it daf koy dindi fa tabarakallah ngi faral di ruus wala ñàkk karaw say karaw di gaaw. waaw yooyu mu ngi si boutique yi mu ngi si boutique mm, yoo xam ne pour kaw kawar la mais que euh, frotté yoo xam ne pour kawar la pommade yoo xam ne pour loolu la de. Mm-hmm. bëri bi pharmacie la rayon yi bëri na macha allah <laughs> garab yi bëri na xam naa ne waxtu bi sax moo ñu xoj ni mënuñu waxtaanee ak lépp. léegi eh, garabu sàcc surtout waaw. nga xam ne bëgg na noo aar seen place seen kër seen néeg waa seen jur fu mën a doon rek. waaw donc sëñ bi ak tarif yooyu gis nañ ak waxtu bi ajuma kese leen du liggéey adresse mhm, boutique yi. macha allah buntu lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay moo buntu lycée bi noo jàkkaarloo euh, bés bu dul àjjuma ma nga fa incha allah comme ni ko waxee neuf heures demi ba dix di mhm. point un tamit am na. ku fa nekkal am na fa boutique yoof si marché bi moom it am na fa boutique am nañ ku fa nekkal eh, tëngeej moom it macha allah am na ku nu fa nekkal mbuur moom it macha allah am na ku nu fa nekkal eh, barab yooyu yëpp macha allah ku dugg si wadduha point da nga gis seen numéro ba pare macha allah eh, tarif yi da nga ko fa fekk bu fekkee ñun nag suñu yënguwaay bés bu dul aljuma buntu lycée Seydina Limamou Laye ko agsi si buntu lycée bi macha allah bu waxee Mara Cissé dinañ ko woon dëkkuwaay bi bés bu dul ajuma si kattanu yàlla euh, neuf heures et demi la ñu tàmbali ba dix huit heures après dix huit heures dañuy liggéey ak waa bitim réew ñi nga xam ne par téléphone na ñuy. mais ku ñuy ñaan ku sa yaakaar nar a tase si ñun rek yàlla na yàlla def sutura ba du ñu déggante du ñu gisee. ndax lu nu am rek loolu nu ko gënal macha allah euh, nuy sant day gërëm. lu si santai sante ko yalla jalla jalaluhu lu si safanu nu koy jegalu lolo nekkon kaddu wa salaamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin jef mbok yi li len len indi indiloon sen emission xam-xam du réer ànd seeg sen television religion bi nga xamantene moy TFM religion seet si ki nga xamantene waxtan waxtaan bi yaakaar ne na te di ngeen si jele xam-xam bu tax ma sha allah wax na fi lu am solo te li wax yeb dafa leer bërëb yaa non pharmacie yene ko mom Vous leen lundi ba dimanche heure 9h ba 18h soit l'un de mes pharmacie site bi mi ngi nonu tamit li Nan naan que point org fa lépp luy information ding ko am ci ki nga donc pharmacie di défilé mën ngeen dem xam-xam soo amee lu la jaaxal soo ñëwee fii du ñàkk bu soobee yàlla di fi am li nga xamante ne doy na la jërëjëf di gërëm bu baax équipe technique bu jàpp si liggéey bi Moodu di gërëm bu baax si coordination bi soxna Fatou Mbuub asalaamaaleykum wa rahmatullah